Mor Gine a jang nañ bay ba ko ba ko baage e doole o daanu nga dalay daan bu max na ko mu daanu waaw waaw doole doxul jàmm waaw waaw cey loolu waaw waaw o jël ko tuur na ko daan ko waaw waaw waaw waaw bëla daan na rouge nga leen di wax la làmb nangu ak la làmb bañ diggante xaasim ñi nga ak orange xaasim ñi nga orange Diourbel arbitre ba soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar ñoom ñaar daw nañ jàppante xale Fatick bi am na benn avertissement waaw gonek Thiès gi gi am na benn avertissement waaw waaw nee na ko bëreel waaw waaw waaw waaw jaajëf bëggee naa la doom ndey mbaa yaa ngi si xale ba war na ko war na ko waaw waaw da lay daan da ngay ñàkk trois appuis ñàkk nga waaw waaw daanu nga oh Thiès daan na ko cees am na un Mansour Fall doxalal ñu dem waaw waaw waaw waaw mburoog ndambe mooy bëre ndambe waaw waaw waaw waaw ndambe jël na tànk ba waaw yëkkati na ko dóor ko suuf ndambe daan na ba ma ngay waaw waaw ma ngay naaw oo oh, ndambe waay Diourbel 1 Thiès Débakooru Sañ am na ñaari avertissement Ganja Fama am na benn waaw waaw Ganja Fama Débakooru Sañ Ganja Fama Débakooru Sañ waaw waaw ama seen ay noonu borom taay singa Ganja Fama Débakooru Sañ waaw waaw Ganja Fama Débakooru Sañ waaw waaw oh daw na jël Dibakor daw na jël Ganja rasu na waaw waaw Ganja jàpp na ca loxo ba ku ci nekk crochet na sa morom waaw waaw Ganja Fama Dibakor sañ Diourbel ak Thiès Ganja Fama Dibakor sañ waaw Fama Dibakor sañ Ganja Fama Dibakor sañ Diourbel la ak Thiès final drapeau chef de l'État catégorie 86 kilos waaw waaw Gandia Fama Dibikor Sagne ma ngay bàkku cey Eumeu Sène kenn du moom Gandia Fama Dibikor sañ cey Eumeu cey Eumeu waaw waaw Gandia Fama Dibikor Sagne Mansour Fall ana mbaa ma ngay jëlle waaw waaw kon baax na Gandia Fama Dibikor Sagne ganja faama dibokor sañ waaw waaw dibo da ganja faama dibokor sañ waaw waaw léegi temps bi jeex de bëri nañ deux minutes ganja faama dibokor sañ ganja faama dibokor sañ waaw waaw tegante nañu bopp waaw waaw ganja faama dibokor sañ jeex na waaw ganja faama daan na ko Gandia Fama daan na ko par décision arbitrale par avertissement Gandia Fama Diourbel am na 2 Thiès am na 1 avertissement waaw waaw El Hadj Sidou Ndiaye Radiakhé waaw waaw Radiakhé di leen fàttali amagul defet waaw waaw moo war finalu par catégorie petit catégorie cent amaguñu défaite ay ndaanaan lañu waaw waaw moo ko daan sànq par avertissement waaw waaw waaw daanoogul gannaawam laalagul suuf waaw waaw waaw waaw waaw waaw jaajëf bii bii yow kenn du yow yaa man ñëpp borom RDV waaw waaw attention rajaxe jël nañ tànk ba rajaxe jël nañ tànk ba génn na ca rajaxe génn na ca waaw waaw rajaxe El Hadj Sidi koy kal El Hadj Sidi koy kal attention rajaxe El Hadj Sidi rajaxe El Hadj Sidi oh waaw waaw dara amagul de oh lan moo xew ruus daan na waaw waaw. arbitre rouge la signalé de rouge a daan rouge daan rouge daan El Hadj Sidi Ndiaye daan na rajaxe 2-2 kon léegi Thiès am na 2 Diourbel am na 2 kon final bi ordinateur la ak fay Faye bëre waa Diourbel daa dugal recours bi mu dugalee recours commission bi siège biñ pare nee nan rajaxe 2 appui la def au lieu de 3 appui moo tax dañ koy ay ca rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye waaw waaw rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye rajaxe El Hadj Sidi Ndiaye waxtaan ak sa coach su ñëwaat waaw waaw arbitre waat na rajaxe El Hadj Sidi jël na tàng ba El Hadj Sidi jël na tàng ba waaw waaw El Hadj Sidi jël na tàng ba da koy daan El Hadj Sidi Ndiaye daan na ko leer na waaw waaw daan na ko bi yoon de leer na moom waaw waaw El Hadj Sidi Ndiaye daan na ko daa mën a bëre xale bi daa mën a bëre Thiès am na ñaar Diourbel am na ñaar léegi mu des final waaw waaw waaw 2 kon Boy Faye ak Libidor ñoom ñaar ku daan sa dëkkay jël drapeau chef de l'état ba waaw waaw Boy Faye Libidor waaw waaw Boy ak Thiès Boy Faye Libidor waaw booy fay ngay jàpp waaw ma ngay jàpp di di pivoter booy fay ngay jàpp di pivoter waaw waaw bàyyante waat nañu booy fay ak libidoor waaw ñoom ñaar ñii li li li tegu seen gannaaw dafa rëy li tegu seen gannaaw dafa diis ndax ñoom ñaar ku ci nekk sa dëkk yaakaaram yëpp ci yow la ko def attention booy fay libidoor waaw waaw Boy Faye Libidor Libidor jàpp na booy fay jàppul booy fay Libidor waaw waaw Libidor a ngi koy puus ma ngi koy faq waaw waaw Libidor Boy fay waaw waaw tegante nañu bopp Libidor Boy Faye waaw waaw Libidor fay Faye Libidor Boy Faye Libidor ngay fàq waaw waaw cey Boy Faye Boy Faye Libidor la dirigé de waaw waaw waaw waaw Boy Faye jël na tànk ba waaw Boy na ko Boy Faye daan na ko Diourbel jël na drapeau du de l'État Diourbel jël na drapeau du chef de l'État waaw waaw oh Diourbel Diourbel jël na drapeau chef de l'État. coach su équipe bu Diourbel bi. waaw tey ñu fekk la regroupement nee na dernier briefing bi lan la nga ne ma jom ful la. fayda dem jël drapeau bi yóbbu ko Jurbel loolu ngeen dëggal tey waaw Mbaye Babacar mooy li ma la doon wax bi nga ñëwee parce que waxoon naa ko keroog nee naa leen bu ma reyee Kaolack rey fatik ñu may naan Thiès ma ne leen dinaa dóor Thiès te drapeau bi incha allah maa ngi koy ñaan sama borom guddi guddi dañ koy yóbbu Bawol bon loolu la booy yi def seen jom loolu la def seen jom ba nga xam ne bi nii ba ñu defee 2-2 Boy Faye le capitaine de l' équipe ñëw ne ma coach ak zéro pression kii dama koy daan ma xam ne li ma wax dëgg te ñëw na prouvé na ko wane na ko ñu naan jërëjëfati suñu borom jërëjëfati suñu borom te nag waa Bawol ñu ngi leen di remercier ñëpp parce que autorité ak ñëpp ñëw nañu jàpp nañ ci gis nañu xale yi ñoom ñëpp ñëw nañu jël nañu kaar ñëw nañu supporté xool yi doon nañu benn bu xool yi doonee benn rek lu ñu wut dañ koy am preuve baa ngi nii di remercier ñëpp nag ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen wax jërëjëf ñu gis bi dem bi ngeen defee 2-2 diggante rajaxe ak ki nga xamante ne bi mooy El Hadj Sidi Ndiaye ngeen def recours recours bi ñëw jox leen gain de cause ñu bëriwaat ñu daan ki nga xam ne moom mooy rajaxe muy 2-2 boobu coach lan nga yëg waaw 2-2 boobu maa ngi yëg ni parce que boobu 3-2 la waroon 3-1 la waroon nekk ma gagné mais affaire bi métteeg man trop. mais bi ma demee ci Boy Faye ne ko Boy Faye yaa ma ci mën a génne mu ne la mu ma coach dama la ciy génne kii maa ko mën dama koy daan vraiment mu ñëw def li muy wax vraiment Mbaye ñu ngi kontaan am kontaan te ñëpp di remercier ñëpp waa Bawol ñi ñëw indi xol yi doon benn lii dong lañ ñu bëggaloon di remercier Etienne nga xam ne moom it def na ci ay pas sonn na ci parce que lii rek lañ doon wut quoi Mbaye preuve baa ngi nii kenn dootul am loo ñu wax ñu woo ñëpp ñëw leen Jurbel suñu Jurbel la ñëw leen ñu jàpp ñu liggéey ñu ànd xale yi ñun ay mag lañu nañu gunge xale yi expérience yaa ngi fi nañu tijji saal yi indi xale yi ñu bëre ñu liggéey ak ñoom jërëjëf Mbaye. merci beaucoup coach merci moom moo jël li nga xamante ne bii mooy drapo du chef de yaay capitaine u équipe bu Diourbel bi tey fekk naa leen regroupement nga ne ma zéro pression Thiès buñ ko jàppee dañ koy defal bagage loolu ngeen confirmé lan ngay wax. Mm-hmm. ah waaw defal bagage rek li ma la waxoon rek mooy dafa am lu ma signé woon ak Diourbel ma ne woon Diourbel fekk dugal ma ko chef de du ma ñibbi sama dëkk waaye sama. ci sa parcours avant ñuy ñëw ci drapeau chef de l' état gis nga dugg ci mbapat yi nga dugg duggaat affaire yi doxul nga def benn recul lan moo waraloon recul bi. waa recul bi loolu la damaa dem ànd ak suma gars yi xam nga ñoom ñooy def lépp biñ génnee ñu dugg ñu daal di reculer wu ne ata dañuy reculer pour mieux sauter dañoo am suñu naataangoo yu ñu nekkal te Boy Faye làmbam day ñëw yenn saa yi mu ñàkk a ñëw mais bu làmbam ñëwee ku ne xam ne ni mbër mën ta taxaw fi te Boy Faye mun la daan amul noo toll te Boy Faye mun la daan xanaa mu ñëw la ak mu ñàkk a ñëw mais dañuy ñaan yàlla mu jaare fi yeewoo fii nii loolu la ñuy ñaan yàlla quoi. mën ko ma fàttali ñu nga mbëkkanteeloon ci ci parcours bi. waaw daje naa fi ak euh, ngañ seen ñu perte na ma da nga am trois appui biñ ci paree ma daje général Malika génnee ko mm. après ci lañ ñëw daal di am. daal di daal daal di génn finaalu ak waa ji ma daal di génnee sa waay ak ak ak poids lourd xaw ma Kédougou la xaw ma hmm. moom jotul ñëw jot ma jox victoire noonu. kàddu gu mujj gi la yooyu. waa di kontaan ci yéen rek. te leen ma drapeau bi bu baax waaw waaw ma def ci benn commentaire parce que Diourbel dañoo def lu rëy dañ doon ànd ak père Dame Sylla ak ki nga xamante ne bii mooy père Bounama Fall di ñëw ci drapeau chef de l'État ñu leen doon gunge heure bu ñu ñëwee am wala ñu ñàkk li ëpp sax dañ doon ñàkk mais bi ñuy ñëw ren. yàlla dogal suñ borom moom leen avant ñuy ñëw drapo du chef de l'État ñu bind li nga xamante ne bii moom mooy banderole bi booy fay may ma tuuti ma liir ko ñu ngi bind CRG de Diourbel rendre hommage aux défunts Dame Silla et Cheikh ma Fall final drapeau chef de l'État 2021 à Kaolack Diourbel jël li nga xamante ne bii mooy drapeau bi di ci rendre hommage ay doomam père Dame Silla ak ki nga xamante ne bii may mooy père Bounama Fall Mansour Fall li mooy kóllëre doon ànd ak nit ba suñ borom jëlee ko fi nga ne da koy rendre hommage jaajëf Diourbel vive Diourbel Diourbel ca kaw sa kanam jaajëf Bawol. Euh, monsieur le maire première euh, réaction bi landa la. oh tout d'abord sant yàlla bu baax euh, gannaaw buñu yàlla sant yàlla bu baax ndax li yombul gunge équipe ànd ak ñoom boobu ba tey yàlla defal ñu ndam loolu lañ ciy sant yàlla bu baax di remercier encore waa Njaaram yëpp ñi xam jàpp nañ ci ndam la ñu am tey. ndax pour la première fois ci histoire Sénégal Ndiarème mu ngi doog am drapeau drapo chef de l'État di féliciter nag waa CNG bi ñoom Mbaye Diaw di remercier équipe technique bi ñoom euh, Etienne Diallo Ndiaye ak ñëpp ak entraîneur yi di remercier encore féliciter mbër yi euh, di encore tamit ñëpp ñi nga xam ñëw nañ tey bàyyi seen yitte ànd ak ñun ak toog Ndiarème di ñu seetaan ñooñu di leen remercier bu baax waaw waa appi nga def daanu nga daanu nga nangul waaw waaw ngoor ñaax daan na ndambe ganja faama Tony Junior ganja faama Diourbel Tony Junior Dakar waaw waaw catégorie 86 kilos waaw waaw oh waaw waaw Tony Junior Gandia Fama attention waaw waaw Gandia moytul Gandia moytul moytul waaw waaw oh waaw waaw Gandia oh Gandia daan na Tony Junior Gandia daan na Tony Junior jël na troisième place catégorie 86 kilos waaw waaw Gandia daan na ko 26 kilo Dibakor Sagne ak Papa Ndiaye Sossokh di bokkoor sëñ Papa Ndiaye Sossokh catégorie 86 kilos final la ñuy bëre ñoom ñaar ay ca ay ca ñu doxal ba léegi combat bi nag daa yàgg waaw waaw ganja faama di bokkoor dara amagul de Dibakor ma nga bloqué ca kaw Dibakor ma nga bloqué ca kaw waaw waaw Dibou Kor a ngi koy puus Dibou Kor a ngi koy puus attention Papa Ndiaye a koy remplacer waaw waaw hey avertissement Papa Ndiaye da ngay am avertissement jeex na lamb ja jeex na Dibou Kor sañ jël na ndam la waaw waaw Dibou Kor sañ jël na ndam la maa la ko wax jeex na tàkk Dibou Kor sañ moom moo jël. li nga xam ñu doxal waaw waaw diggante Sélémélé ak ki nga xamante ne bii waaw waaw troisième et quatrième place la ñuy bëre waaw waaw Sélémélé Abdourahmane Mbodj diggante Kaolack la waaw Abdourahmane Mbodj Kaffrine oh waa ñoo bokk seenuk Saalum diggante Saalum laak Ndoukoumane benn la waaw waaw Abdourahmane Mbodj Sélémélé waaw waaw Sélémélé Abdourahmane Mbodj troisième et quatrième place fii ci Kaolack Ndangaan Sélémélé Abdourahmane Mbodj Sélémélé Abdourahmane Mbodj Selemele Abdourahmane Ab Abdourahmane Selemele waaw waaw ñoom ñaar tegante nañu bopp waaw waaw oo oh, cey lamb waaw waaw waaw waaw Abdourahmane Mbodj waaw waaw troisième et quatrième place waaw waaw Selemele Selemele Kaolack Abdourahmane Mbodj Kaffrine waaw waaw o oh, Sele Abdourahmane a koy génne bañ na waaw waaw wala Sele ko doon génne Abdourahmane booy Sele mele ma ngi ko doon dóor tànk waaw waaw Abdourahmane booy Sele mele Abdourahmane Mbodj Sele Mele Kaffrine ak Kaolack def ceeg sorti ci la rek ñoo bokk Saalum da wax naa leen ko Abdourahmane Mbodj Sélémélé maire bu baax baa doonu maire de la commune de kenn du moom waaw waaw attention oh waaw waaw dalay daan oh Abdoulaye Abdoulaye Abdou Abdourahmane Mbodj daan na Sélémélé day waay Sélémélé jom na waaw Kaolack lu leen dal jaajëf Mansour Fall demb nag ordinateur dafa daan ki nga xam ne wala rajaxe moo daanoon ordinateur waaw ma nga door a rajaxe moo daanoon ordinateur demb ton tey revanche la rajaxe ordinateur waaw waaw rajaxe Diourbel ordinateur fatik Fatick Fatick waaw waaw rajaxe ordinateur ñoom ñaar ña naxante di déglu wante waaw waaw oh rajaxe daw na yootu tàng bàyyi waat waaw waaw moytul rajaxe ordinateur ay ca oh, rajaxe jàpp na rajaxe jàpp na rajo jàpp na ordinateur ngay rasu moytul waaw waaw ordinateur oh, oh ordinateur daan na rajo ordinateur daan na rajo xe toog ci kawam waaw ordinateur daan na rajo xe waaw waaw oh la ordinateur daan na rajo xe am na benn waaw waaw. jamono yi da cee nekk. lamb biddéew la sa biddéew bu feeñee pour daane du yomb waaw waaw billaay maa ko wax kenn du yow bii bii Jurbel wallaay Thiès Fatick Thiès mooy dernier combat de la soirée. 120 kilos. ñu yëgal nag ne dañuy joxe récompense 120 kilos yi ba pare doo ko joxe récompense par équipe. ayca yàgg na maa nga ca général Malika ak Libidor Thiès ak Fatick catégorie plus de 100 final drapeau du chef de l'État ah, waaw waaw day lan xew. lu xew. arbitre soufflé na waaw waaw arbitre sifle waat na diggante général Malika ca général jàpp na général jàpp na oh day gaaw de général jàpp na day jaay doole général jàpp na day da oh Libidor oh général Libidor Libidor da ngay jël avertissement général jàpp na Libidor Libidor rasu nee naa la général da cee nekk waaw waaw waaw général Malika Libidor attention général Malika Libidor waaw waaw ñoom ñaar ña ngay bëre ca kaw dara amagut waaw waaw di leen fàttali lii final individuel général Malika ak Libidor waaw waaw waaw waaw général Malika waaw euh, waaw waaw général Malika euh, euh, Libidor arbitre souffle na jàpp daa mel général daa jàpp ngemb wala lan la waaw waaw général Malika Libidor waaw Malika Libidor waaw waaw ay ca Libidor ngay jàpp waaw waaw oh eh moytul général Malika Libidor waaw waaw Libidor général Malika attends général oh libé ngay libé ya général Malika général Malika ngay accélé accéléré général ngay accéléré moo diriger komba bi nag. oh général général plaqué na ko daan na ko général plaqué na ko daan na waaw waaw oh général plaqué na daan na ko oh général Malika plaqué na ko daan na ko. nee na day bind. Libidor nee na day bind. dafa def 3 appuis. 3 appuis waaw. loolu nga gis. waaw mën naa gis lay plaqué di la mbaar dafa def dafa def 3 appuis. waaw daanu léegi loo bëgg. def recours. def nga recours wala dafa goo recours. moom laa def yaa ngi def recours. waaw yaa ngi déglu table technique bi. moom laa déglu waaw. jaajëf Samb yow. waaw. ayca ma nga noona Mansour Mamadou Moustapha Sall ñu naan ko fils de Badlen moom moo jël troisième place. Libidor moo jël deuxième place ci catégorie plus de cent yi wante général Malika moo jël première place ayca ma nga noonu ñi lay di jox seen ay prix waaw waaw Mamadou Moustapha Sall moo jël troisième Kaffrine la représenté woon Libidor moo jël deuxième Thiès la représenté woon gis nga général Malika ma nga noona ci digg ba moo jël première Fatick la représenté woon ma nga noona trio baa ngi noonu Mamadou Moustapha Sall. ñu naan ko fils de Batlen Libidor ak général Malika.